Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube Zoukani. Si vous êtes intéressé à tout ce qui touche à l'informatique, que ce soit des astuces, des, des tutos sur le développement web ou bien comment gagner de l'argent sur l'internet. Donc abonnez activer la cloche des notifications pour ne pas rater aucune de mes vidéos. bon gars yi tey dama ñëw indi leen benn plateforme bi nga xamante ni mën ngeen ci gagner des cryptomonnaies gratuites gratuites parce que essayé naa ko ba retiré naa ci en plus ci tuto bi ngeen seetaan ba fin bi dinaa leen wan preuve dinaa retirer en direct ngeen gisal ko seen bopp quoi parce que fii moom boo joxee plateforme la doon plateforme bu fiable boo xam ni essayé nga ko ba ba jot say crypto doo ko mën a publier moo tax lépp lu may def rek damay indi preuve avant quoi bon bi mu ngi tudd MMS Bit bitcoin memes bitcoin nag boo ci bëggee dugg boo xoolee description bi def naa fi lien bi ci ngay duggu inscrit sa compte yaakaar naa comment créer mon compte nag duñ ko jàngal kenn duñ ko wan kenn boo suivre instruction yi rek di nga créer sa compte plateforme boo duggee lii ngay am dashboard mooy tableau de bord en anglais xaaral ma ko sax en français mi ngi nii boo xoolee ñu bindal équilibre somme bi laa am actuellement zéro virgule zéro zéro 3471 laa amagum actuellement lii ay énergie la lii solde de dépôt la nangam ak nangam plateforme bi trois cryptomonnaies nga am droit pour retirer mooy Tron Shiba ak Solana léegi fii boo xoolee yaa ngi gis Tron nee nañ la bu dee da nga retirer Tron deux façons nga mën a retirer Tron soit nga utiliser portefeuille direct wala nga utiliser Faucet Pay Pochette Pay yaakaaroon naa ni sama tito bi mujju expliqué naa ko war naa plateforme Pochette Pay nu mel ak boo ko bëggee am lan ngay def boo xoolee description bi rek dinaa si defaat kii kii bi lien pour nga am foofu compte léegi boo xoolee fii tron yaa ngi gis un tron égal zéro virgule cent huit dollar kon tron jëlagul valeur un chiba tamit égal zéro virgule zéro nangam ak nangam cinquante huit dollar kon Shiba jëlagul valeur bi tamit pont la ba tey bii yaa ngi Solana fii ñu ngi naan la un Solana égal deux cent vingt deux cent vingt neuf mille douze dollars lii cours bitcoin cours cours du kii la cours du crypto monnaie que ça soit Thon wala Shiba wala Solana Solana comme bitcoin rek la mel quoi. crypto monnaie quoi xaw ma nan laa leen ko mën a expliquer nii monnaie boppam la quoi un Solana Solana boo ci amee un boo convertir en dollar la actuellement nii fi ñu toll nii ci loolu la tolloog ça veut dire ni plateforme bi dalay jox cours du bitcoin actuellement dala koy jox supposons léegi su ma bëggoon lu retirer fii nii je préfère retirer Solana parce que moo ëpp valeur un Solana égale moo ëpp valeur et en plus minimum de retrait solo naa mi ngi ni égal zéro virgule zéro nangam mag nangam donc am na possibilité pour retirer parce que fii moom loo am rek mën nga koo retirer directement solo Solana dinaa ñëw ci retrait bi ni muy demee mais fii nan ngay gañee xaalis bon première tâche bi njëkk mooy référence référence ça veut dire que ni nga jël sa lien de parrainage nga jox ko sa xarit wala nga jox ko kenn mu inscrire à travers sa lien loolu su ko defee na nga ciy gagné vingt pour cent invité boo amee gagné vingt pour cent de leur gain ci gain am na nga ciy gagné vingt pour cent man deux personnes rek laa pare néegum total bi lii man lii rek ma joxagum quoi ji ci ñoom seen pourcentage léegi tâche yi ngay def yaa ngi gis fii ñu ngi la bindal tâche quotidienne tâche quotidienne bi tâche quotidienne bii nii. fii ay yi ngay matal la boo ko matalee rek ni ngay bës fii boo xoole fii deux sur dix complété dix raccourci deux plus dix complété cinquante réclamation de robinet ñu may la ñu may la lii la ñu may quoi zero virgule zero deux fii ngay cliquer rek pour kii ko loolu xam na après di ngeen ko naan léegi day ñëw robinet automatique robinet automatique boo ko cliquer chaque vingt minutes dañ lay may zero virgule zero zero un USD dollar. de eh, dejar. na instant bii may nañ ma ko lii publicité la publicité bu ñëwee nga quitté waat may nañ ma loolu versé nañ ko sama compte léegi beneen bi si mooy manuel faucet manuel faucet bi su ma juumut chaque cinq minutes la chaque cinq minutes dañ la may léegi fii na nga koy utiliser ay fermé lii publicité yi la ay fermé publicité yi fii yaa ngi gis neuf un trois la nga xool je pense que bii mooy neuf bi bii mooy un bi nga cliquer fii bii mooy trois bi lii publicité la nga quitté waat publicité trois daal di cliquer collecté ñu may la zéro virgule zero zero trois dollar nga daan def ok captcha bi la li yaakaar naa ngeen ko quoi waaw ok moo nekk ni boo xoolee suma solde bi sax yokku na boo xoolee fii yaa ngi am short link short link yi ci ay site ngay visiter ñu lay fay déjà fii nee nañ boo fa duggee dañ lay fay zéro virgule zéro zéro mille deux cent sept et cent sept USD yii nii yëpp bu la neexee nga cliquer bu ci neex en général duma faral di ci dugg lu bëri mën nañ ko fermer parce que day jël temps rek li ci gën a am solo mooy PTC bi PTC bi ay site ngay visiter tamit mais dañ lay jàppal temps ay cinq quinze secondes ñu la ciy fay man dama utiliser yëpp yëpp bam jeex mais na ngay ñëw fii nii rek gis soixante wala cent et quelque cent cent dépend par jour mën nga utiliser yooyu man dama utiliser yooyu noonu yëpp mën nga utiliser noonu yooyu léegi dama leen di won bu ngeen di retirer naka ngeen di retirer bu ngeen demee dashboard logiciel léegi booy retiré bu dee ton nga ko bëgg a jëlee boo xoolee minimum de retrait foog nga am deux dollars te man actuel amaguma sa un dollar Shiba tamit boo xoolee minimum de retrait cinq dollars boo xoolee Solana minimum de retrait zéro virgule quatre zéro trois la kon ça veut dire que ni man am naa possibilité pour recevoir boo xoolee li dalay jox li ma am zéro virgule zéro moo nekk nii li ma am ci dollar léegi boo convertir en Solana da lay jox zero virgule cent vingt sept léegi su ma koy retirer samay sama adresse sama adresse portefeuille Solana laay utiliser bu Fawcett Pay Fawcett Pay waxoon naa leen ko yaakaaroon naa ne ku bu dee yaa ngi may suivre rek xam nga ko wala su dee yaa doo ko dal ci vidéo bi boo xoolee vidéo précédent yi di nga xam Fawcett Facile Pay plateforme bi moo nekk boo xoolee plateforme bu boole crypto monnaie yu bëri la bitcoin ethereum Binance Solana bi mi ngi nii mais pour nga récupérer portefeuille Solana bi c'est très très facile da ñëw fii déposit boo wàccee nii déposit yii nii yëpp bitcoin bi sa portefeuille bitcoin mi ngi nii ethereum bi lépp boo defee nii Solana bi mi ngi nii nga cliquer fi copier ko nga daal dem ci plateforme nga cliquer fii daal di koy coller actuellement xoolal sama solo Solana sama portefeuille solo maa ngi fi am zéro virgule zéro deux vingt sept maa ko am quoi léegi ma defee retrait ngeen xool retrait bi day ñëw ci saasi te gaaw na ba def retrait fii ngay cliquer rek mu daal di dem envoyé la retrait bi zéro virgule quatre mille cent soixante treize lépp laa retiré quoi ne ko sama compte lépp léegi nga dem sa page page bi mu ngi nii su ma ñëwee ma actualiser gis ngeen sama Solana bi bi yokku na waa bi agsi na mi ngi nii instant premier décembre paiement bi ñëw na quoi ça veut dire ni lii site bu bu abul la mën nga utiliser Solana mën nga retirer tamit tron bi moo nekk nii mën nga utiliser tron bi mën nga utiliser tamit Shiba bi mais Shiba bi mënoo koo retirer fii Shiba bi ci direct rek portefeuille direct rek ngeen ci mën a retirer xam naa dinaa ci ñëwaat quoi di leen wax que ni ba abonné et activer la cloche des notification pour ne pas aucune de mes vidéos